yéen yéen jaaxle la yéen de suñu xar <laughs> nga de xar moo ne photo bi wax bu amul mi ngi nii de laay lay laa xar ma jur bay sama yaay day jaay kilo pomme de terre deux cent mille moor a créé xaru kaw si moor dafa créé xaru kaw daa leen def suñu kër Mor créé na xaru Koso da koy jaay si tabaski. am na xar bi booy ni ko kër Mor. booy nee na am talent booy. saa yow ren bu na xar moom amul daara ah, moom ñoo koy jaay moom. xar moom moom. ah eh sama gars yi. eh frère maa ngi taxaw bi di leen dégg ngeen di duul rek bàyyi. saa yi da nga ko di bàyyi. xoolal li ma si gën a jaaxal ah li ma si gën a jaaxal. ah sama yaay li bëri pomité 200000 la koy jaayee. xaru ko su nag. waxatuma si kii de man borom xaru koosu bi man sa waay si laay ñëw man. nga am talent de booy bi. booy mun nga dulle. ii booy booy sama yow mu ngi fenn. sama yaay liibaru pomme de kilo bi deux cent mille. bëgg jëlaat bi ne xëy na jar na. tey ngaa bañ a dem tey ngaa bañ a dem. non am na yow mënu ci mën de. yaa mooy tere ya xaru koosu moom saa yi wul kay wul kay wul ci deret bi la bul ko ko jàppee. loolu <laughs> mën a demee bàyyi. loolu la demee kay saa yi mën a dul trop. mais saa ma may ma jëlal xar ma gis mooy baa koy booy bi mooy xar boobu de saa yi bu koy ren jàpp. waaye ko ko jàppale xar mën nga kut. <laughs> xar mi yooyu moo yow li wax yéeme na de li wax yéeme na de xar mi nga ni moo jur bëy moo tax it yow comme bëy de parce que yàlla. saa yoo loolu mooy man xam na laa xam. ab fas bu jur mbaam ay loolu lu ñu wax moom wax dama ne fu ma yóbbu sama kóol bi dama kaa saaj ba deux cent pour cent. maa ko defar ba bi man la. dégg nga Aliouma dulati na. man la Aliouma dulati na. maa ko defar déglu leen ko déglu leen ko saa eh, yi mu dulati. man maa ko defar nee ma nu ma ko defaree. waaw ah, yéen ko defaree moom su ma ko waxee da ngeen koy sàkki. soble laa la wax de. soble laa la wax de soble dama koy chargé si batterie téléphone. laa illah man saa yi ma dem. météo sa papa yeewagul xar yeewagul xar xaru 1500 yi pëli di wàccee xar yooyu waaw si yow nga dem jënd xaru ko si waay ñoom quoi booy da ngay wax ñu foog ne da ngay fen say dama koy wax na dëgg de papa néew mu di xat xamoon nga rek dama lek dama lek moo tax ñu tuddee ko suka mu wéy toog suku la kanamam gi di mel ni bu leet bu xam